soxlawul ngay xam kan la mën nga def sax ñu bañ a xam ne yow def nga soxlawul woon sax ñuy wax ay tour quoi mënoon nañ ñëpp mënoon nañ def parce que gars yi moom Sénégal macha allah saa bu ñu wootee doon la sama moom façon ñëppay dem. d'accord tey jii ana ban anecdote boo xamante ne daal dina lay marqué boo xamante ne vivre boobu ak Jules. match yi ah match yi match yi dañ teekoon nañ jàmm quoi ma nit ku dee moom nit ku dem moom ku la jiitu moom am na yoo xam ne moom kii rek nañ nañ ñaan rek nañ ñaan rek. si. li seen projet yi lan la maam moom amuñu projet woon. amuñu projet xam copain lañ rek. Euh, a wax loo xam ne public bi ko. ah def naa gars yi wax nañ lépp de. bilaay gars yi wax nañ lépp. négligence euh, médic. waaw mais fuñ cam toll nii tamit jamono war nañ yee suñu bopp. parce que day tiitaloo ko kenn. nit day dee gars di wax leneen. di ci ànd ay xuloo di ànd ay débat ñeneen ñi di def leneen. instant yi comme nii nii dañu nekk ci dëj nañ concentré ci loolu. waaw ñaanal ko bàyyi yenn détails de la SICAP te ñëpp dañ ko bëggoon tu vois par ses actions nit bi mu nekkoon quoi c'est un gars qui est vraiment joyeux donc euh, dem demam bi dafa metti vraiment quoi voilà vraiment dafa metti quoi on a perdu euh, frère et on sait pas comment expliquer ça quoi vraiment dafa metti quoi. ouais, on a, on a, on a, on a, on a joué sur des trucs ensemble, tu vois. C'était ça, ça, lolo, chaque fois. bu ma à chaque fois daf mel ne booy focus parce que dans dans le milieu dama xaw a nekk na ku xaw bizarre quoi tu vois donc chaque fois il me di booy focus focus focusal tu vois donc euh, je vais jamais oublier ces conseils là tu vois donc euh, voilà quoi. Euh, je l'ai su euh, deux jours après. laa ko xam parce que m'avait dit dafa nekkoon en coma et euh, bëggoon naa ko seeti neex mu c'était pas possible après le lendemain dañ ma jubee dem na ko waaw. booy focus <laughs> focusal quoi nekk si loolu la ma mujjee wax ko waaw. Euh, amoon Oui, lui, il avait beaucoup de projets. Il était, dans plusieurs séries qui se préparaient. Et euh, y avait des projets qu'on qu aussi, nous, entre nous. Mais bon, on va essayer de lui rendre hommage par rapport à ces projets Inch'Allah. Ouais. Est-ce que dans nos religions, lui, baax la fii koo leen laaj la ne la JP du nit buy mer buy xuloo oyof amee loolu ak kenn quoi vraiment. li ma marqué ci moom bari na Jean Paul am na jàmm Jean Paul am na salaam Jean Paul social lay dox Jean Paul kaf fooree foo ko fekk mi ngi kaf am jàmm ak ñëpp seq kook mag ñi seq koog ay moromam seq koog ay xale yi. nan ko a gisee bésu tayam bi. ah sant yàlla bu baax di ci yonent bi salallaahu alayhi ndax JP li mu am nii ay kilifa yu bëree bare génn nañ fi àddina te amuñu ko mhm. kon lii nii bésam tay bii moom moo ko liggéey. nekk na loo xamante ne moom moo ko di nit ñi kenn amul foo jaar kenn amul foo taxaw macha allah ñëpp uy nañ ko. Mm-hmm. ñëpp uy si nañ ko ñëpp ñoo nañ ko tàggoog moom man mënu ma sax wax wallaahi azim. lan ngay wax ay mbokkam ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon ay mbokk acteurs am ci milieu xanaa di leen ñaanal yàlla rek yàlla na leen yàlla may xolu muñ ndax yàlla suñu borom moom bu soxlawee rek ku soxla da ngay ñàkk mm-hmm. yàlla def na li ci moom def na li ko neex def na li ko soob di ñaan yàlla rek yàlla may leen xolu muñ lii rek lañu am nag àdduna lii rek mhm. doo yóbbu kër doo yóbbu eh, oto doo yóbbu dara mhm. ni ngay ñëwee noonu ngay deme mhm. kon boo xol bu set ak wax ju rafet ak nekkin gu rafet loolu rek lañu am moom la yàlla may te yàlla may nañu loo xam ne ci aar bi loo xam ne mayu ko kenn ànd bi ñuy ànd nañuy ànd juboo man man mag laa boo xam ne Euh, euh, maa ba tey yàlla may na ma maa ngi ànd ak yéen. Mhm. yéen mi nga xam ne yéen ay jeunes yi. Mhm. li ma leen di digal mooy ngeen ànd jubóo. Mhm. ubbi leen seeni xol. ndax lii mooy wane ni on est même famille. bi ñoo ko bokk. amul xëccoo amul ŋaayoo amul jiiroo ñun ñëpp a ko bokk kun ci nekk am nga sa place. àndaleen ngeen jubóo ngir yàlla ak yónnee ba ndax aar bi. te ku ci am naxar ñun ñëpp war a am naxar. kenn ku ci nekk ñun. war nañoo am naqar mhm. ku ci am bànneex ñun ñëpp ñu partagé ko mhm. waaw loolu laa leen di conseil mhm. loolu laa leen di diggal nañu ànd juboo ñun ñëpp voilà maman qui était Jean Paul Jean un garçon boo xam ne vraiment euh, bu dee ñun maire yi dañu naan c'est un ange ndax Jean Paul amoon na xol gu baax Jean Paul dafa daan partage Jean Paul du la romb te du la nuyu man dama ko daan romb mun sol soxtam ci buntu këram bu ma ko rombee rek bu ma séenee rek jóg ñëw si man jàpp ma kotta ma fóot ma ndaxte dama doon wax ne c'est mon fiancé ndax man yéen ñëpp samay fiancé ngeen yéen ñëpp samay jëkkër ngeen yéen ñëpp samay doom ngeen mhm. waaw mhm. donc euh, voilà Jean Paul mhm. Jean Paul c'était l'homme de tout le monde te loolu wane na ko tey ji mhm. wane na ko tey ji ndax gis naa fi sax di des petites filles mhm. de douze ans sa sët sët ak sëtaat mhm. ñu ngi taxaw nga xam ne Jean Paul nit la woon en de acting bi nga xamante ni moom la doon def ñu gis ko mu doon œuvre ci wàllu social acteur yëpp jëloon ko jiital ko ci li nga xamante ni moom la activité yi nga xamante ni moom la ñu doon def loolu lan moo ko mayoon li ko ko mayoon mooy li ko ko mayoon mooy mbaaxam mbaaxam moo ko ko mayoon ak yar yaruteem Mhm. loolu ko ko mayoon mhm. dafa yar dafa yar woon xale bu yaru mhm. xale bu bëgg nit nit boo ko bëggee rek am nga lépp ci àdduna boo bëggee nit rek sa sa sa morom rek am nga lépp ci il habite pas loin de fu ma bu may romb côté boobu maa ngi koy gis muy toog Et dans les, dans, dans les films, il partage, il a partagé des films avec mes enfants. Mhm. mi nga xam ne euh, euh, euh, Samir. Mhm. ak Ben. mi mhm. toog seen wet. donc euh, voilà c'est la famille d'artistes là. c'est notre fils c'est notre frère sunu lépp la. waaw maa ngi tudd xamadu Bamba Camara ñu gën ma xam ci Tafa Sarr bon ci euh, dëju euh, JP euh, Jean Paul Almeida ñëw nañ fi tey ci armeel bi en tant que doomu aadama moom muy doomu aadama ñun ñun. donc ñu ñëw ndax suñu mbokk artiste la mu doonoon ko ñu jege koo xamante ne ñun artistes yi xamante nañ suñu biir ba tax na moom sax moo ma dugal ci groupe artistes yi. waaw moom moo jël sama numéro dugal ko ci biir groupe groupe artistes yi pour ñu nekk benn. donc ñu ñëw fi tey euh, def li jul ni ñëpp di def ay mbokkam muy mbokk euh, chrétien ñun ay mbokk jullitam ñu ñëw teewee bés bi nga xamante ni moom lañ koy denc dégg nga dégg nag ñu naan jullit du ñaanal chrétien mais ñun en tant que musulman bu ñu koy ñaanal sax duñ ko tey ndax loolu nag mënuñu ci dara ndax da ngay dégg jékki-jékki ñaanal ko noo xamante ni yow doo ko tey waaw mais nag nañ xam ni doomu aadama la la la yàlla wax doomu aadama la yàlla bëgg yàlla nee na li ma bind doomu aadama moo ci gën doomu aadama la sakk ci melokaanam doomu aadama la yàlla sàkk ci melo j'ai créé l'homme à mon waaw doomu aadama aussi mooy kóotaay yàlla ci kaw suuf li may wax nag mooy wax naa ko fa sànq ci ay interview mooy nga juddoo fi ngay juddoo léeg-léeg ñoom ñoo lay déterminer ñoom ñoo ñoom ñoo lay yóbbu ci li ngay doon nga judd nekk euh, musulman dafa fekk say waajur nga doon musulman nga juddoo foofu ñu yar la ci nga doon ko nga judd nekk chrétien say waajur ñoo la ñu foofu nga juddoo ñoom ñoo la yar nga doon chrétien à moins que nga dem ba màgg nga changé xool beneen voie booy jël di wax am nañ xel mu dal ci moom ndax ndaw la woon 88 je pense la la juddu doon xale bu ndaw donc dañuy am xel mu dal ci moom ci ci ci ci xew-xew yi ni mu demee ak seede bi ñu ko seedeel ñun ñëpp luñ ko luñ luñ ko maase seedeel mu génn àdduna bésu altine ñu denc ko juma bésu altine ñun ñëpp xam nañu euh, mandar yi ñuy jox ci diine juma tamit xam nañ nu mu représenté moo gën ci bés yi ajjuma bésu ajjuma moo gën ci bésu bés yi semaine bi donc moom ñu denc ko bésu ajuma su suñu xel day dal ci moom waaw suñu xel day dal ci moom loolu daal lañu am lu lu luñ doon wax ci moom waaw. mais un acteur extraordinaire hors pair moo fi bàyyi ko monde du cinéma nag moo am dëcc mais ñun bi ñu agsee fii dañ foo woon ne ñun rek la mais àdduna yi a ngi fii laaw la cat yàlla bu ko cat jiitu ci Bambey xale bu baax la woon bu xam li mu doon def mën ko macha allah ba pare jox nit cër. loolu laa ci mën a wax. gisee et puis euh, li ñu si rek mooy dañu yéex a communiquer acteur culturel bi wala euh, kii kii kan la pour ñun ñu taxaw ci. c'est pourquoi je vais la la parole à Max Max Diagne mi qui joue ak moom au niveau de Idole ak euh, au niveau de Even Prod man ak moom on a joué deux fois. joué nañ ci Even Prod joué nañ ci Karma muy denc suma doom magu Ndeye kon père rek la ma doon wooyee loolu moo fa nekkoon man dunduma loolu yàlla ji kenn rek la man mi Mouhamed laa tudd maa nga woon ca biir église ba toog ca mees ba lan la may wàññi la ma séqoon moom bi muy dund moom kóllëre googu lañ doon mottali nit ñi nañ bàyyi yëfu caaxaan dañ koy wax ci biti di ko waaw di ko graawal te li ñuy def ci suuf moo gën a salte nañ ñu dimbale ngir yàlla yàlla ji benn rek la. a ah, man loolu duma ma ko dund su ma ko doon dund duma dugg ci église ba su ma ko doon dund du ànd ak moom ba fii ñu koy dencee te mu tudd Mouhamed dem Màkka man élage la kon loolu gëw ma yàlla ji benn rek la ñëpp la fi kenn ku nekk foo nekk ne ak la nga gëm sa affaire la sa diggante ak sa borom waaw mais mun na bañ a ñaaw na nga respecté ton prochain kenn gënul kenn manjaago bi séeréer bi eh, eh, malgaas ba chinois bi ak sénégalais bi ñu ñëpp ay mbindeef lañ te benn yàlla bi la. waaw comme ni ko grand bi waxee rek jëkk saa rek gis ko ci euh, internet bi bon en fait euh, grand bi lancé na aussi benn message bu am solo mooy communication bi muy gën a clair ndax tey jii nii euh, moment bi ñu koy demandé sans am na communication bi mu doon demee defe naa mën na ci jariñ ñu bari jariñu ci. en fait de bon benn affiche si jag saa daf benn acteur bu mag la ñuy ñaanal direct donc voilà dafa xaw a vague voilà mais tamit aussi tamit yàlla moom lii la namoon daal mais daal euh, ku xool bés bi ni mu demee nii xool la amoon ca église ba defe naa war nga mën a moytuwaat yenn wax yu débordé yi daal ba au fait euh, ñu ngi mujj a gisee cinéma Pathé waaw ba juróon visionné benn film ndeysaan mu déplacé wu ñëw ba ci man jox ma ñaar loxo ne ma grand na nga def ñoo benn label bari na ay film yu ñu partagé ensemble donc et aussi match de football yi ñu doon génne entre artistes ñoo doon demandoo donc daal moom la moom ñëpp la amaloon jàmm wax dëgg yàlla doo xam sax fa la bokk koor gi laa la wax ah te moom ba fu mu toog day tudd yàlla donc voilà quoi moo tax ñenn ñu war nañ mën a def ndànk te léeg-léeg nit ki di nga ko gis mu ne la fi laa bokk mais ci wàllu digganteem ak boroomam da nga ci war a tey da nga war a tey bu baax